concours général la dañ ko organisé basé aussi ay décret depuis 1961 lañ ko commencé xam ne loolu yàgg na et concours bi élève terminale rek ak première la concerné ren nag mën nañu wax ne que si matière, yi si discipline yi fanweer ak ñaar la ñoo xam ne ñoom ñoo si composé discipline yi bari na waaye 32 rek la ñu yem ren si classe première matière yi bari na moy anglais allemand arabe citoyenneté ñom ñep droit de mathématiques, ba mathématiques russe etc. so ñewé terminal encore mëna jox pratiquement nul, sauf que fi amna ci les matières techniques moy analyse de fabrication mécanique électrotechnique électronique etc. cetera mathématiques, sciences physiques, physiques et maintenant nak pour nga mëna à ce concours général c'est plus école yi war nga am moyenne si sa classe 12 sur 20. Mais matière, si vous voulez être candidat pour concours général, il faut que matière pour 14 sur 20. Nous avons également que le prix est organisé. Pour que nous ayons un premier prix, si la matière est composée, il faut soit 16 sur 20. Pour avoir un deuxième prix, 15 sur 20. Troisième prix, 14 sur 20. Accessible, 13, moi premier accessible. 12, deuxième accessible. Il y établissement yi ni ñu mel donc defuñu classement établissement parce que lycée yi duñu donc comment on nañ ko def di wax ne bii mooy meilleur lycée waaye gis nañu lycée boo xam dafa am 10 000 élèves ki am 60 élèves ou 120 élèves soo leen di classé day xaw a jafe loolu dindi nañ ko donc suñu pratique ren nag def nañu délibération bi fale si université ñi waroon teew yëpp teew

Nous avons 51 accessibles. également première ligne, nous avons une distinction Nous avons nañu 44 alors nous également également public public en tout cas parce que 72 sur public 29 sont privé. J'ai yi aussi am nañu 48 distinctions góor ñi am 56 alors suñu ñu demee ba si euh, classement bi mun nañu wax ne classement bi aussi dañ ko organiser benn arrêté moo koy organiser pour que nga mën a wax kii lii la am dafa am pondération sur les premiers prix lii la deuxième prix lii point yooyu la jël pour mun a classer nit ñi donc mun nañu wax ne si classement bi en classe de première. Je vous momo nek Fatou lycée d'excellence Maria Ba série S2 qui Ginette Claudia Isabelle colli aussi série S2 lycée d'excellence Mariama Ba troisième bi Fatou Bintou Fall série S1 lycée scientifique d'excellence bu le suñu terminal premier bi Alassane Diallo série S1 toujours lycée d'excellence Je vous dis que ne nag suñu jëlee pondération les meilleur élève ren ci concours général mooy mademoiselle Fatou élève qui a ne mu ngi lycée d'excellence Mariamba, Ba série S2 meilleur élève scientifique de concours bi sous dee premières, Fatou Bintou Fall bu Diourbel ak Serigne Fallou Sall série S1 pour Limamou Laye ñoom ñooy meilleurs élèves en tout cas scientifique supérieure. première terminale meilleur élève Malik Malick série S1 lycée bu chaque année dañu doon seen élève boo xam ne moom polyvalent mooy mu ngi partout mais ren nag classé wuñ ko mun wax ne que am nañu mbégte le fait que ay yeneen lycée yo xam ay lycée yu célèbre la ñu ngi ci concours général mais gën ñu ñëwaat mais ren nañu en tout cas prix palmarès lycée Fall Charles de Gaulle Kennedy Seydou Nourou Tall ak Diodio lycée yo xamné mënuñu mais surtout di wax ne que institut Amadou Sow aussi ba ñu ngi également euh, d'autres lycées celui de etc. cérémonie bi le 11 août ci grand théâtre euh, thème bi nag mooy nañu seet le système éducatif bi nan lañ ko war a tijji ci ay compétences yu bees waaye mu ànd ak suñu valeur ñun suñu valeur sénégalais surtout que nan nan la ñu war a fexe ba réforme mu ñu xoolaat mooy lu ñu wax ne suñu programme yi suñu curricula parce que laaj na à tout moment ñu xoolaat suñu programme mais loolu nag il faut que ñuy xam waa IGF ak yeneen inspecteurs yi ñu jéem a seet nan la ñu fexe ba ñu conserver suñu valeur ñun mais waaye encore ñu tijjee ko ci compétence yu bees parce que xam ngeen ne dans 10 ans mun nañu wax ne que dina am ay plus de 30 métiers ñoo xam ne ils vont s'éteindre ay métiers yu bees ñooy ñëw loolu nag laaj na ñun ñoo xam ne ñu ngi ci biir école bi ñu war a adapter suñu formation yi ak monde bi du ñu laaj léegi ren.